في ياف قد سرى فدق قلبي من خير قد سرى قد سرى وسقاني قد جفا طيف الكرى قلت أين مني أين منه من اللقاء من اللقاء سنقال أين موضوع أين بيسي من اللقاء من اللقاء المولود للقاء للقاء سنغال شيخ الخليفة يبرم جامونو من اللقاء من اللقاء سنغال برم بونيكار برم جامونو من اللقاء من اللقاء سنغال شيخ الخليفة حاجي منصور من اللقاء من اللقاء يا حاجي منصور حاجي حبيب من liqaam Sénégal Seydi Djamil soxna ummu bi liqaam liqaam ayna min ayna minhu min liqaam min liqaam wa wisalin bil maali qad yura هذا قلبي من خير قد سرى جفا طيف الكرم مولا طبع أصلا فقفت لن جهرته من جهرته من مولا ما خفى بل ما خفى من في الثرى هج قلبي من خيال قد سرى قلبي قد سرى وصفاني قد جفا طيف الكرم وين كميات أهل bisub ñaan di bisub fàttaliku di bisub delloo njukkal sunu yaay soxna Naar Diop oustaz Cheikh Faye jàngalekatu alxuraan bu Sàmbe Londior doon ko amal talaata fukki fan ak benn ci mois de safar atum 1442 yamook le 29 septembre 2020 miladiya oustaz Cheikh Faye jàngalekat alxuraan doon ko amal foofu ca Sàmbe Lonjoor mbooleem kuy soppe baa ngay xarit baa ngay dëkkandow baa ngay am di jàmm te bokk ci mbooleem tarixa yi moo xam murit bi moo xam tijaan bi moo xam xaadir bi moo xam laayeen bàyyi ko ci diggante gox ak gox daal ñëw delloo si njukkal oustaz Cheikh Faye ci bis boobu nga xam loo xamante koy def ci boobu la bis ginnaaw bi ñeenti waxtu jotee nag daal defar bernde yi jox nga xam ne ñoo nekkoon foofu lay ci boobu la bis oustaz Cheikh Faye nag nee na di ñaanal baax mbooleem booy daw lii yàlla yàlla yërëm leen taxaar leen àjjana ci barkeb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa